accaye premier demi-finale fa diggante Cuuna Boy Gora Gora Njaay Fatick Cuuna Boy Gora Njaay bu Fatick ee eh, Cuuna Boy Chuna boy mafan. Chuna boy mafan. Chuna boy final. Wow, wow. Seen yop fopelelum. Mais ya are ne Chuna boy final.